mbir mi day maanaam lu ñu bett rek ndax euh, bi ma xëyee euh, comme ni ma daan liggéeyee man comme maay responsable te mbir mi day euh, dafa doon loo xam ne nii maanaam yombut ñaari morgo ñoo fi nekk morgue góor ak morgue jigéen bi yàlla dogalee ñu ñuy liggéey ni may liggéeyee mooy maanaam képp koo xam ni da ngaa aye garde dama lay jox caabi pour morgue góor ñi jox la caabi pour morgue jigéen ñi su fekkee yàlla dogal na maanaam nga fanaanee liggéey bu ba set. so xeye manam da ngay ngab sa caabi ubi buntu bi ànd ak man ubi turwaal yëpp fu fi new nek ma tek ko beut xol ba xam nan la fanaane ba new yëpp daj gor ak jigen su ko defé su ko defé ñu commencé liggéey yow nga libar dem ñibi ma commencé libéré di di jox ñi ñi sang ñu sang tay nak biñu xeye ah comme nekuma fi amako mako boyalon suma xeye te gisoma eh, wanal koku new yi kooku moo ma woo ma ñëw mu ne ma man de numéro 4 ci jigéen ñi am na fa fu ma fa dem foo xam ne nii gis naa fa benn néew am na gaañu gaañu ma ne ko ah mu ne waaw ma dal di jóg waaxu dem ci morgue jigéen ña ubbi numéro 4 xool euh, néew ba mu am benn góom waaye ma ne ko ah bii góom daal du tey ndax góom góom bu doon tey du wow ba pare ci kaw góom bi am dëtt li wër góom bi commencé ñuul. boo bëggoon euh, nekkul ni tey la dagg damaa yaakaar da ko fee indaale dal di ubaat ñëw toog di continuer sama liggéey biñ demee ba nga xam ne nii maanaam euh, ubbi nañ ko pour ay bokkam yooyu ñu ñu toppatoo ko ci la ci la ci la ko teg ci kaw lal bi ñu ne maanaam néew bi lii dañ koo dagg may leen ah buñ ko dëggee de xam naa du tey ndax bii góom déglu rek bii góom du tey ci loolu ñu ne loxo yi am nay xosi xosi tànk yi am nay xosi xosi mu xoolal door a xoor baaraamu loxo bi gis gis gis gis mu am xosi xosi dina ci ma xol tanki gis mu am xosi xosi dina ci waaye lu ci nek xosi xosi la nekut luñu ñu yob amu ci fenn fo xamni ne nii am na fa dagg yob te gom bi niroo góom bu ñu dagg góom boobu du tey góom boobu ci kaw gi commencé na wex am deut gom mënuñu ko dagg biig mu nacc biig fer biig am dëtt tey suba kooku mom munta nek te 11h minuit la fi néew bi ñëw lii moo doonoon problème léegi waaw